madame la ministre ñu ngi lay gërëm bi ñuy ñëw nag wax dëgg yàlla xaare wu ñu woon réception bu ni mel xam naa ni suñ ko xamoon dinañ ko gën a waajal ñu nit pour pour andi fi délégation bu gën a takku parce que pour mu nekk rencontre ndajeem nawle donte sax suñu dajeem ak yow rek doyoon na. waaye mu am ay seede ci ñu ñu leen sopp soppuñu baax na ci ba tey parce que dañuy sóoraale ëllëg ba kenn ku nekk suy dellu di wax ak ay mbokkam dina am ay ñuy seede ak ñuy jottali eh, damay wax ni suñu teewaay fii méritam la moom madame la ministre moom moo tax ñu teew fii tey gannaaw yàlla nag mbaaxam moo tax ñu teew fii Euh, jiital intérêt Sénégal bi mu jiital intere Sénégal moo tax ñu teew fii ndax bi mbir mi amee donte mosuñu woon xamante ci gannaaw ga li jiitu loolu bokk dafa bàyyi jitteem yépp def délégation am laajte ba ñu woon ko sama kër mu ñëw seet si ma ñëw manifester ma solidarité témoigné ma naqaram waaye won ma dogu gi mu dogg ci ànd ak ñun ci xeex gi loolu nag daf ma yeey man mii ndax defe naa lu jiitu loolu weer ci gannaaw walla lu mel noonu moom amoon na ay jafe-jafe ba bi ñuy am yéene naa dañ ci wax ak dinañu bind communiqué yu demee noonu ci la yàlla def mu génn su ñu même réactivité bi ci moom ni ko amee peut-être dinañ doon témoigner li ñu bëgg témoigner wala naqar lu ñu war a wala manifester suñu solidarité bala lol di am. kon madame le ministre ñu ngi lay gërëm ci sama tour sama turu njabot sama turu parti sama turu coalition ak touru sénégalais yépp nak parce que li xew ci fan yi biir Sénégal du mbirum Ousmane Sonko. lenn lu ndaw laa ci waaye mbirum sénégalais yëpp la sénégalais yi ñoo manifeste ni am na loo xam ne mënatuñ ko nangu ci réew mi parce que nag lu ëpp tuuru mënoon na am bu yàgg ci yeneen cas yu fi amoon mais yàlla li muy def moo xam kañ la koy def ak ni mu koy defee kon ci turu sénégalais yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax nag ni da ngeen ñu ji kóllëre te bu soobee yàlla dinañ doxal kóllëre googu suñu diggante. di wax tamit ni euh, li nga wax lépp nag dañ cee ànd gëm nañ ni Sénégal dafa jot nag ñu am sànq sax da wax alternance waaye dama naan Sénégal dafa jot ñu am alternative parce que moo gën a xóot mooy ñun ñëpp ñu dëppoo ni doxalin walla dox bi Sénégal di doxe anam yi muy doxe bi ñu ne amee indépendance ba léegi am na lu ci sooxe ndax su du doon loolu duñu am plus de 60 ans d' indépendance ñu boole ñu ci ñaar fukki réew ak juróom yi gën a ci àdduna parce que sooy wax te tegoo ko ci ay fait ak ay chiffres dañ naan day politique dafa contre waaye nag soo ko tegee ci ay ay firnde yu leer mooy fii ñi fi nekk ñëpp en tout cas ñi fi bëri wala ñi fi ëpp mës nañoo tukki au moins benn yoon jël avion génn Sénégal dem ci yeneen réew xam ngeen ni mënuñu ko méngale waxuma sax réew yi nga xam ne dañ ñoo jiitoon bu yàgg noot ñu waaye dama ne réew yi nga xam ne ñoo jëlandoo indépendance ak ñun ñu ci bëri tey soo demee Maroc wala nga dem Tunisie wala keneen ak keneen nga xam ne ñoo tolloo woon defe naa tey ñun ñëpp gis nañu différence bi kon loolu du contre ma Masamba wala Mademba waaye ay finde la ñun ñëpp nañu dëppoo ni loolu mënul wëy fimne ni alternative la soxla moy ñu joggé ci benn model bo xamné ne ñam nañ ko essay nañ ko doxul ñu and set benen met model model bobu nak likoy tabax du benn nit du benn parti du benn kurel loolu ku ko gëm rek nax nga sa parce que politique Sénégal amul benn parti bo xamné ne mën nga génné firnde bu lèr ni yow am nga 1 million de militants su ma nee militant rek mooy ku engagé wu jënd carte de membre nekk ci terrain bi nekkal parti bi suba guddi kon loolu li muy wone mooy soo dajalee parti politique yépp ma matuñu sax xaaju fichier électoral bi wala sax tiers bi kon li ëpp ci sénégalais yi bokkuñu ci benn kuréel politique dañuy am yéeg-yéeg ci élection ne diw doy na ma ma woteel ko mais noonu ñu ko mënee def ci élection bi noonu la ñu mën a wëlbatikoo beneen élection génn ci kooku ba mu set woteel keneen kon li mën a soppi réew mi benn nit mënu ko yenu loolu il faut ñun Sénégalais yëpp ñu gëm ko léegi xam ni culture de la personnalité jàpp ni diw su ñëwee moom ab yenent la wala damitu malaaka la su ñëwee mooy soppi réew mi mooy lii déedéet il faut ñu am ñu dajale sénégalais yi gëm Sénégal yëpp bëgg Sénégal te defuñu politique ngir seen poos ñooñu il faut ñu dajale leen ñooñu nag ñi ngi fépp nit ñi mun nañoo bokk trajectoire mun nañoo bañ a bokk trajectoire parce que ku nekk ak fi nga jaar moom ba may jël décision ne day politique am 14 ans man xama ban at laa waroon am waaye man xalaatu nekk ci politique donc ñëw na seet lu ko doy mu ànd ak loolu te jamono jooju loolu moo fi nekkoon ci opposition bu tax ñuy wax opposition ak alternative mu ànd ak loolu xeex ñu yéeg wàcc xeex ba yàlla dénk leen bi leen yàlla dénk it moom nekk na fi ministre de ay ati at am na ñoo xam ne li mu li mu def ci gouvernement diir gi mu def ci gouvernement def defuñu le le dixième te ñu ngi leen di poursuivre moom mu mun a nekk ministre yor ñeenti ministères yu bokkul te kay kenn boolewu ko liste CREI yi kenn audité wu ko kenn taqalu ko damay japp ni kon bokk na ci Sénégal yi nga xam ne seen yéene leer na ci réew mi seen loxo setna ñu wara bokk ci ñi defar réew mi ñu am yaakaar ni war nañu mëna and lolu ci jikko la waye war nañu mëna andit ci gis-gis ci xalaatin ak ci programme parce que yeen da ngeen tuddu alliance patriotique ñu ñu tudd patriote du Sénégal kon patriotisme bi dellu si na ñu bokk ko loolu nag suñ ko bokkee parce que ñun dañu faral di wax ni li gën a manqué Sénégal ci suñu élite politique bi mooy patriotisme patriotisme mooy bëgg sa réew bëgg sa réew nag neex naa wax koo fi ne bëggoo sa réew mu xuloog yow dafa mel ni jullit rek ñun ñëpp jullit lañ koo fi ne tu es mauvais musulman jour boobu yaa ak moom defe naa xeex bi ak lu mu muti mel kon sénégalais boo ne homme politique boo ne doo patriote mu xuloog yow mais dama mës a wax benn premier ministre jamono coowul pétrole bi mu def conférence de presse ne nul n'a le monopole du patriotisme ma ne ko akamaa ci ànd waaye ñun ay fee la ñuy jël parce que wax balaa muy neex rek nga nga andi ay firnde yu leer li euh, suñu kilifa gi li ñuy wax ci diine dalil wax bala muy leer rek nga andi dalil yu leer bu ko defee coow du bëri suñuy wax patriotisme ci politique dañ koy natt ci nit ki ni mu yore est-ce que ni mu yore ci intérêt réew mi la wala intérêt waa bitim réew la ak poosam moom foofu rek la ñuy patriotisme te loolu buñ ci dellu see rek dinañ gis ni ah li fi nekk du patriotisme ndax lu am ci alal muy géej muy suuf si muy suuf sol bi tayle nañ ko mu génn ci réew mi loolu du patriotisme kuñ fi dénk di nga surfacturer marché public yi damm sa poos wala kees kees bi nga nga këpp ko loolu du patriotisme parce que boobu jamono hôpitaux yi doxul njàng mi doxul nit ñi sonn nañ góor ñi jigéen ñi xale yi loolu nag moom la moo andi problème yi ñu am nii yëpp ndaw ñi génn massivement message bobu lañ ñu envoyer madame le ministre il faut ñu dégg ko ñun les hommes politiques sénégalais bëggatu ñu loolu ci sen homme politique dañu bëgg sen homme politique nekk au service du peuple jaamu sen réew xam ni politique jaamu yàlla la parce que soo ko defee ni nga ko war a defee nee naa sa julli mun na manqué sa koor manqué ñu ne seet nañu coono gi mu doon ci askanam yóbbu ko àjjana kon loolu mooy message peuple bi te gëm naa ni loolu la ñuy essayé dund ñun ñi ñëpp kon madame le ministre ñu ngi leen di suñu ouverture talal na leen suñu loxo eh, ñu essayer daje ànd waxtaan njëkk a dëppoo nag ci gisin ak xalaatin ci li ñu bëgg ci Sénégal parce que loolu dafa am solo bu loolu lalee ànd rek ànd googu day dëgër bu ñu weesoo lool nag leneen luy ñëw mën nañ ko sóoboondoo te bu soobee yàlla ku ñu song daan ko man gëm naa lool